arbitre baa ngi wax kay sixième combat bi dox ci diggante Carrière bu Bawal ak ki nga xamante ni nii mooy Hôtel Dior arbitre bi sifflé na Hôtel Dior Carrière a ngi dox ci kawam Adel Dior Carrière Carrière a ngi dox ci kawam dina ko dóor mu daanu Carrière a koy dóor Carrière baa du ko dóor mu daanu Adel Dior daw na Adel Dior Carrière Adel Dior Carrière Adel Dior Carrière jàpp na Hôtel Dior jàpp na da koy daan lu muy def nii carrière Hôtel Dior carrière na ko da ko dafa diis carrière Hôtel Dior carrière defal ndànk Hôtel Dior ndaanaan la ci làmb lu ne def na ko ci làmb kalaat na ko ba doo daanu Hôtel carrière carrière Hôtel Dior Carrière Hôtel Dior Carrière Hôtel Dior Hôtel Dior Carrière Hôtel Dior ngay dóor Hôtel Dior est-ce que génn sa loxo bi yoon la lu ko bëgg a def lu ko bëgg a def génnaat nañu carrière dafa bëgg a jeexal laamu ji waaye laamu du noonu laamu du noonu carrière carrière Hôtel Dior Barrière Hôtel Dior Carrière Hôtel Dior Carrière dafa yaakaar ne ñoo saax saax Hôtel Dior jàll waaye Hôtel Dior dafa bañ loolu Zongale waat na ko mu bañ Zongale da koy daan Carrière daan na Hôtel Dior Carrière daan na Hôtel Dior waaye daan na ko waaw waaw doole yamul